non ko fin dip nak dip ñu waxtaan nak quoi dip nak do album def comme ni def parce que gars bu ñuy un album day melni rek euh jigen bu jur dom sanni quoi manam ñokoy jur mais dom dañ ko jël sanni ko quoi mais je trouve je trouve désolant tay album bu melni qui bi plus fi la fekk bo paré mu bay affaire non quoi def clip quoi tu vois mon je trouve que son bu sunshine mais bu ko même si tu pas sénégalais da koy anglais bi ci reggae mais c'est c'est trop nice son bu mel ni homie homie ama piano bi mais son bu jar na lu mais son yoo xam ni dafa clipable quoi yéen a am seen te yooyu même ak li naan international international mais son yooyu dafa nice mais dib génne ko rek grâce quoi toog quoi. te tamit j'ai fait une remarque ah dib bu mu génne reptile ba léegi dafa mel ni euh, bu mu demee si Jean Pierre Seck ba léegi bu mu nekkee reptile la gënoon parce que dib bu daan génne ay album tu affiché, un clip tu vois, faut le pour accompagnement, quoi, mesure d'accompagnement, il faut le quoi, que pour un Parce que, ah, c'est un film. listening c'est un film euh, madame comme bi album par rapport à Bini. bon am gap quoi à vrai dire album B c'est la meilleure qualité mais peut-être il est nous assuré non, non, non 6 Pierre Seck bi sentir moom quoi parce que album bu toll ni nga génn ko def ko après def say date nii mooy loolu quoi tu vois donc daal man daal c'est trop désolant quoi parce album bi bëri na affaire daal moo fi benn constance ahlu brique waaw benn constance ngaa ko fu mu amoon na ko fu ne dafa toog waaw album bi am na dëmm am na iblis am na tol am na kaani am na laaj album bi tamit na génn wala nga may lancer ñu benn single sax à part iblis bi waaw tamit foo mu loo quoi parce que tamit gars yi dañuy xiifloo gars yi trop quoi tu vois tant que amul wala clash gars yi duñu gis dara c'est un peu désolant quoi.